li ni mel ñu di ko waxtaanee fépp rawatina ci réseaux sociaux yi juróom fukk ak juróom ñaari téléphone portable yu ñu nangu ci ay ndongo yu doon def l'examen ñu toll ci juróom benn fukk ak ñeent ñoom nag ñu dàq leen defuñu l'examen yi li ni mel mi ngi am ci centre d'examen bii di nouveau lycée bu Kaolack jury 1506 ni ko protocole bi waxé la taño tambali président jury bi dafa ñëw wax leen règlement bi. bima ma commencé si suba di séddale épreuve bi comme nima koy défé at bu nek damay laaj candidat yi ne téléphone waru ñëw waxon nañ leen ko donc bima ma leen euh ne leen ndax sen saag amul téléphone ñen ñi weddi ñen ñi nopi bi ma nee leen nag bu amee téléphone dama leen di sanctionné ci la ñenn ñi commencé ma jox seen téléphone man ma jëlee téléphone yi mu nekk nombre de 64 ñoom ñëpp ku ci nekk ma sanctionné la ba pare signé loola PV daal di lay sanctionné daal lay dàq te loolu mooy li réglement bi wax. ñi leen nekk ci jafe-jafe yi nag xam nañu ne ñoo nekk ci njuumte waaye ñuy wax lu ko waral. ci ni mu ko récupéré dañ nañu ci convocation yooyu yi ñuy jox dañoo interdire maanaam téléphone. ñu nag ñun dañoo def benn erreur mooy dugal Tivaouane ci biir saal bi mais moom bi mu ñëwee daf ñu laaj nañu ba xam indaale ngeen fi ay téléphone ñu ne ko waaw léegi mu récupéré téléphone yi avant mu ñu jox épreuve yi. li waral loolu élèves yi koo ci laaj danaan la sama téléphone moo ma moo ma indiqué ma ñëw fii nii parce que bu dul woon téléphone du ma fi xam parce que am na ñoo xam ne niveau li fa bañ demee LTL e lañ njëkkoon a dem ci suba gi biñ ñëwaatee lañ lañ lañ lii découvrir ne fii lañ war a defee ñu ñëw. loolu mo waral motax ñu yokk indi sen téléphone parce que amna ci ñoo xamné ne instant yi nii sax problème la pour ñu ñibi wa ndax sen sen sen xaliss mi ngi ci sen compte wifi ak yoy non ak vélo yi lé yi ñi wo pour ñu jël ci leen ak yooyu lolou motax ñu indi ko mais du ay problème mu tricher ak ay yoy non erreur la nak dossier bi ni mel nak fi mu tollu djébal nañ ko conseil discipline office national du bac. légui nak li leen xaar bon lolou du man ma koy décider parce que man sama liggéey fi la yam mooy ma def règlement bi léegi nag li leen di xaar loolu office di bac dafa am li ñuy tuddee commission de discipline ñoom ñoo koy xool saytu ko ñoom ñi ku ci nekk dem foofu récupérer sa téléphone ñu wax la kañ la la commission bi di déglu buñ leen baalee ñu defaat bac beneen yoon buñ leen baalul nag ñu xool nuñ leen di sanctionné ñu bari ci ndongo yi ñu dàq nag ñoom bac arabe lañu ñu doon def jury 1506 am na lu tollu ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ñetti candidat ñu tas leen ci ñaari pàcc série L prime am lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom ñetti candidat série LA moom am lu toll ci ñaari téeméeri candidat